naka mu ci loo nekk mbaa yaa ngi ci waa waaw mais yow waaye jox na la chèque bi ah waaw ah, ok c'est super c'est super waaw man dama dem bay ñëw nii am sam benn grand bu ma jaar café foot waaye benn encyclopédie quoi benn gayen bu am xam-xam léegi daam ay affaire yu ma soxla yu ma bëgg mu wax ma ko quoi ci football sénégalais bi waaw mais d'accord waaw mais d'accord xam naa bu yow bu ngoonee dinañ gisee incha allah ok jaajëf nekkal si jàmm ok léegi-léegi <sighs> booy baax nga trop. Hmm. waaye nag du ma encyclopédie. ah déedéet. dafa fekk ne am naa lu ma fekkee ci histoire. Hmm. te nag c'est très normal. Hmm. man ma jokkil man mun jukkil leen waaye nag du ma encyclopédie de. en tout cas daal ñun liñ ci xam. ak su tuut. doy nañu. saam te dafa baax trop ñun xale yi nga xam dañoo bëgg football. ñu ñuy fàttali suñu histoire ancien wu football. da baax rek. xam fan la base bi joggé hmm. ba fiñu ñu yegg si fii hmm. Hmm. xam suñuy arrière ñun loolu jox dañuy jël doxalal ñu dem wa mais grand soñu mënon wax ci campagne 86 bi lool dina ma neex de xam nga campagne ker 86 Sénégal wara dem jakarlo ay nawle pou ko moyen fouf gën ko gëna mëna min fouf Coupe d'Afrique mais war naa la senegal gëj na fa ñaata at. dix huit ans dix huit ans. fukki at juróom-ñett. Mm-hmm. Mm-hmm. Sénégal war dem ak ci ay moyens boppam. Mm-hmm. waaye nee naa la engouement bi. képp kuy sénégalais. mag ndaw góor jigéen. ñëpp a ca dugaloon seen loxo. xale yu ndaw yi sax. dañ doon cotiser juróomi dërëm juróomi dërëm. déet waay. waaw. jamono yooyu ñu ngi soxla woon deux cent millions. deux cent millions si jamono jooju. Mhm. mais deux cent millions deux benn sponsor rek mun na ko. laa ilaaha illallah. deux cent millions bariwul benn sponsor rek da koy joxe ñu. ñu jàll ci leneen booy li ma lay wax ni deux cent millions ci jamono jooju. ah jamono jooju bu nit daan téye un million day xam ni téye na un million. Mhm.

C'est la vie. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça va, grand Ça fait, ça fait un, un bail, hein Oui, ça fait un bail, oui. Ça fait des lieux qu'on ne s'est pas vu. Oui, oui, ça fait longtemps. Mais assois-toi, s'il te plaît. D'accord. Devant le café, hein Mais grand, oui. 12 wala. Non, 12. 12. 12, hein ah. dafa que 12. Mhm. avec un peu de sucre Hein? mais grand tey daa mel da ngaa duggaat France de. non mais bien sûr. yow de France dëgg. manteau mais sama mbokk laa. grand bi solal manteau min faal salalmade ɓe delo Je mets mon manteau igo Boss. Boss. souvenir hein aliou vous savez aliou mm euh, lui c'est un panamien ah si. Et euh, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Euh, moi, euh, quand je suis à Paris, lui, il était, vraiment un, un bambin, hein, si je ne me trompe pas. Tu étais tout jeune. Hein? Tu étais tout jeune. Non, mais c'est pour ça que tu ne l'as pas reconnu. Hein? Ah, et certaines, tu as ah, vu. la France me manque beaucoup. Euh, sinon, FN, c'est Yéré ou Sadal. Parce que nous avons, nous avons nos réalités. Moi, au début, je ne croyais pas à ces euh, sorcelleries, mais ça existe réellement. Parce que un plus de ma tank. Hein? Ah, mais bien sûr, coup de ma tank, finalement, je suis Non. Je suis bouché. C'est grave, ça. C'est grave. Ah, j'ai beau tenter de revenir en France, mais enfin. ah la France. Ah. la France n'est plus ce la hmm. France n'est plus ce qu'il était auparavant. la hmm. France n'est plus ce qu'il était auparavant. France avec le franc. c'était c'est vraiment cool quoi. de toute façon. moi je te dis. magnifique. Ça fi. me sortir là, Magnifique. Ça football comme la l'ai de daan je def nous football. café foot mini. je suis très content de gis la ah. Content naa trop. ah nga ci oh. ah merci. Ah, ah, <laughs> samay la noir bi may Panam. Mm-hmm. Panam. Euh, Panam, le rappeur, les C'est Bouba qui a dit ça. Ah c'est Bouba qui a dit ça. C'est ma boy, le Wood. Ah bon Ouais. Nous Bouba ñoom Taris. ok tout jeune. ok donc un rapport C'est problème la ma ok ok. Euh... bi day parce que daf may fàttali rek. la fii au Sénégal. Mm-hmm. nga xamante ni. Mm-hmm. ñëpp ànd noonu. gannaaw mm-hmm. fa équipe nationale. da ngaa jógee France Sénégal. Ah,

dajale nañu seen doole. Mhm. jaaykatu gerte caaf yi. Mhm. apprenti car yi maçon yi mhm. menuisier yi. ah yettakat yi. tout le monde. ku ne cotisé. dégg naa dégg naa sax golo yi nekk golo yi nekkoon parc am dañ doon cotisé cent franc benn golo cotisé wul benn segg cotisé wul benn gaynde cotisé wul. nit ñi ñoo doon cotisé. ah parce que tamit euh, soxla woon nañ ko. loolu. moo nu may doole. fit Gogo, la ñu ci match d'ouverture contre Égypte. Mm-hmm. ok match d'ouverture mom ñoo ci mën. waaw match d'ouverture. Mm-hmm. amuñu ci morom France. 2002 ah, mm-hmm. jërëjëf. mo ñu Égypte Je gu ci Moubarak. mi nga xamanteni mom président. devant 120 000 spectateurs. ah grand exploit hein da nga dugg ci match comme xamante de France. le 31 boobu. mais ajuma jooju grand. Mm-hmm. Mm-hmm. non pas Bobo Diop de lu qui nous a donné le but de la victoire. un grand respect pour lui. Mm-hmm. une minute de silence. c'est bon. oh grand toggle, ah

ma ci gërëm El Hadj Diouf. Henri Camara. Oh. moom laa moom ndax mu neex mukk ba ñu fàtte. Mhm. Diouf la ñu ko bàyyi. Mhm. El Hadj Diouf nga xamante ne day dribble latéral yeeg yëpp. def passe mu yomb ko lool. Mhm. mënoon li muy def. waaye tamit bu ñu nee attaquant ba fàtte Henri Camara. le recordman en selection équipe nationale. 99 sélections. lu jar a bàyyi xelam boo waxee kooku. Mhm. sama xel dem ci Fadiga. Mhm. ndar-ndar bu mag boobu nga tudd. Mhm. noonu rek la mën a def. ma daal gis nga Bruno Metsu. ak Jules François Bocandé. Oh. amuñu seen fay. yàlla na leen yàlla xare àjjana. man daal li ma doon wax rek laay wax. bu réew mi yëpp àndee ñaanal leen. barki Seydina Aline Cissé ñu indi fii coupe bi. dëgg la dama lay wax benn bi. barki Seydina Aline Cissé coupe bi dana ñëw fii. incha allahu rabbi yàlla na nu yàlla dégg amiin